tey nag ñi ngi fi woon comme ni ñu ko baaxoo di ko def depuis 2019 ba léegi nii ñi ngi def journée sociale ki turu fondation Soxna Baali Muntaxa Mbakke ren nag ñu ñëwaat def ko comme ni ñu ko daan defee ñëw dajale lu am solo lool ci lim bi nga xam ne gis ngeen ko ci ay denrées xëy na sax dañuy bëgg a bañ a tudd lim bi di tudd chiffres yi loolu lañ ci doo waaye lépp lu ñu doon def ren dañ ko yokk ndax gis nga lii fi ci ay ceeb sunu ginnaaw. loolu lañ fas yéene sëddale ko daara yi sëddale ko néew ji doole yi te li ci ëpp ëppaat solo mooy am na benn conteneur boo xam ne dafa indi ay ay conteneur boo xam ne ay ay matériels médicaux la ma nga ne la suñu kanam te it matériels yu bees tàqale yu kenn mësul utiliser Suisse la jóge ñëw mu nekk matériel bu bari lool dañ ko bëgg aussi jàppale ko jox ko hôpital yi ñi ko moom loolu lépp nag fondation bi def na ko te xeeb ko lool bëgg it ñëpp ñaanal ko ba lii mu continuer ba déwee nag jàmm bu ñu fa dajee ñu defaat lu ëpp lii fondation bi daal na ñëpp xam ne li mu bëgg mooy bis bu ko amee kattanam fii ki dëkk bii képp koo xamante suñu borom def na la ngay néew ji doole dutoo jàmbat kenn sondage dana fekk fa nga nekk jàppale la ki lépp loo bëgg. li ñu indi lu yees li jëm ci askan wi mooy lépp lu ñu doon joxe ci ndimbal yokk nañ ko te jàpp nañ ñun fondation Soxna Baale Mountakha ñun li ñu ëppal solo mooy wut ndimbal jox ko ñi koy teewoo mooy am nañ loo xamante ëpp na lañ joxe woon indiwaat joxaat ko néew ji doole yi indiwaat conteneur boo xamante ay matériel la def yu yu matériel médical yoo xamante ne ma tuddoon lim bi lu mu néew nee na ëpp na trente millions ka conteneur bi donc ëpp na loolu ñu jël ko bëgg ko jébbal ñi nga xam ne ñoo koy teewoo fondation bi jëfam weesu na tubaa sànq wax naa ko fii ne bëtt nañ ay forage yoo xamante ne bi génn na Touba mën naa ki cité Mbul mexe am nañ fa jumaa bu ñu fay tabax mën naa gis ne dëkk yu bari fii ki Touba liñ fi def moom kenn mënu ko wax. daara yi dem na ba Saint-Louis dem na ba Kaolack dem na ba Tivaouane dem na ba kokki dem na ba Porokhane kon loolu génn na Touba kon fondation yu jëfam ci foofu la toll dafa bëgg bu ñu ko mënee bu déwénee. 14 régions yëpp ku ci nekk am sa cër ci fondation bi. lépp lu ñu la waxoon ne suñu projet la muy centre féminin bi ak centre de formation ak daara moderne lépp mi ngi en xëy na nag ni ñuy doxee. munta gaaw parce que projet dafa bari lool dañu bëgg lu ci nekk ñu def ko ndànk-ndànk waaye li ñu la wax daal bëgg nañ lépp lu ñu la wax ne la sunu projet la incha allah danañ ko réaliser bu nekkee yàlla. waaw sunu diggante ci nguuru Sénégal mooy sant bu baax a baax son excellence président de la république ki nim ñu taxawoo ndax ku ne xam ne fondation décret présidentiel moo koy def moom moo jël décret am créé fondation bi. ku ne xam ne France dafa soxla accord de siège moom moo joxe ndigal ci ministre des finances ministre des affaires étrangères ñu jox ñu accord de siège kon loolu amuñu ak payam loolu lépp mënaluñ ko suñu bopp bu ñu ko defalee kon lépp lu ñu ci am ci moom lay delluwaat. tey ndimbal bi li toll ci famille yi lu mu néew néew néew ëpp nañu ci daara alxuraan yi ëpp nañu deux cent daara tey bëgguñu aussi di dimbale nit di ko jox benn saako dañu bëgg ku ñu jox ndimbal nga dund ci ay weer léegi sama ginnaaw cinq mille sacs de la. xanaa 5000 sacs de riz tey yow boo doon évaluer xam nga ñaata la parce que bëgguñu tënku ci ay chiffres mais léegi suñu gannaaw 5000 sacs de riz la léegi suñu gannaaw ci ay pat macaroni 100 sacs la léegi suñu ginnaaw ci ay ay couscous 60 cartons mi ngi fi couscous euh, macaroni carton yi ndoy 100 mi ngi fi suukar plus de 500 grosses mi ngi fi ëpp na ko léegi nag loolu ci xayma xam ne yéen journaliste moom da ngeen bëgg a toujours lépp ngeen lañ bët ko ba mu sës waaye ñu ren da bëgg ngeen nangul ñu loolu rek. li liñ doon def daal doublé nañ ko waaye dañoo bëgg tënku ci loolu ba a joxe ay chiffres. fondation bi xeex ndool ci la dëkk tey loolu la bëgg bis bu taxawee ba taxaw dëgg dëgg dëgg dañu bëgg fii ci dëkk bii bu fi ndool amoon cent ñu réduire ko ba quatre-vingt pour cent nga xam ne tey ndool dana fi néew lool xëy na sax ndool jeex fi du yomb waaye danañ ci bay sunu waar ba tey ndool wàññeeku fi